mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu siwaat ci suñ téere bi di bulughul maram bu alxaafis ibn hajar rahimahullah ñu ngi nekkoon ci li ñuy tuddee kitaabul buyuu yegg si woon tey ci fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent muy baabu luqata doonte ni mi ngi tombe it fukkeelu fan ak juróom-ñeent ci rabi ussaani ci 1439 bi bu dee mool bi ma yor mi ngi ubbee xadiisu 966 an anas radiallahu anhu qaal marra nabi salaa sallam bi tamra baabu luqata an anas radiallahu anhu
الباب التاسع عشر باب اللقطة عن انس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عصاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضلت الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضلت الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم
kon mbokk bunt bi ñuy ubbi mooy baabu luqata di buntu for an anas radiallahu anhu qaal marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi tamra yonent bi day daa romb benn tàndarma fi tariq ca yoon wa fa qaala lawla anni axaafu an takunu an takuna min alsadaqati la akaltuha mu ne bu dul woon ak man day dama ragal ne lii daa bokk ci saraxi azaka yi kon day doon naa ko lekk mi ngi noonu muttafaqun alayhi mbokk kon bu ñu xoolee bunt bi mooy bunt for ci diini lislaam sàgganewul dara looloo tax nit ki la muy dox di ko for moom atte yu ca suñu boroom teg xadis bi ñu jàng suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam ànd ak leen ci saxaabaam daa di gis benn tàndarma ci yoon wi mu ne tàndarma bii day su ma ragalul woon dafa bokk ci zakat dinaa ko lekk loolu lañ cay jànge mooy yow mi nga xam ne danga yor aw ñam ngalawaay bu ca xeeb lenn lu cay wadd masalan ab tàndarma la wala ab lu mën a doon jël ko ndax bu dul looloo day nekk ak yàq ak lum néew néew ñaareel ba it mooy ñam yi mel noonu boo ko fekkee ciw yoon su dee mën nga koo jël jëfandikoo ko nga jël ko jëfandikoo ko wala nga jox ko loo xam ne dana ko mën a jëfandikoo même bu doon ab bàyyuma rasul sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa araamal ci moom mu lekk zakat mu ne nag dafa ragal lii mën a bokk ca la nga xam ne nii moom mooy zakat yooyu mu bokk ci tamit naam ci ni doomu aadama bi war nay góorgóorlu di moytu lekk lu bon ak loolu lu mu néew néew néew ndax gis nañu yonente bi alei salaam benn tàndarama rek la waaye nee na li tee mu lekk ko rek mooy ragal na dafa bokk ca la nga xame ne ni moom mooy zakkaat yooyu muy wane it ni nit ki bu dee dafa for mbir moo xam ne mbir mu bu nit dul dem di wëri la ay lu tuuti la loolee mën na koo jëfandikoo mën na koo daal di jëfandikoo moo tax yonente bi alei salaam ne bu ma ragalul woon mu nekk ci tàndarama ci asake ma lekk ko loolu it moo tax waa ji doon dox ba mu jël fakkasaloo gis benn cent franc loolee da ngay gis di wër ci mbedd yi naan ko dal cent franc loolu daanaka ak ñàkk jot la su ko ittewoo mën na ko jëfandikoo comme mën na ko jox keneen mu jëfandikoo comme it lu deme noonu ci lu ñàkk solo amma bu dee ne loo xam ne nii doomu aadama bi que réer li mën naa dem di ko wëri loolu xadis bi ci topp moom mooy leeral loolu xadis boobu mooy xadisu zayd ibnu xaalid aljuhayni رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن غور دا نيو سي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة منكو لو خمت لو فر منكو اعرف عفافها ووكاءها mu ne ko na nga fexe ba xamle mbuus ma mu nekk ak lañ ko takkee summa arif hasana gannaaw ba nga xamle ko am at fa in jaa saahibuha su dee ne borom ñëw na nga jox ko ko wa illa fa sha'nuka biha su ñëwul nag nga xam ne sa mbir nekk na ca loola qaala fa dallatul ghanam mu ne ko loo xam ci xar mu réer ci àll قال هي لك أو لأخيك أو لذئب من إما من يلا ولا من يلا سبن دومني ولا من يلا تلغرك قال فدالة الإبل من كوا جلم غرير تعلنك قال ما لك ولها من كلنا نيل أك جلم غوغي معها سقاؤها مغا عندك مملكوي نندل تبيرم وحذاؤها أغلنا خميني mooy tànkam ba nga xam ne moom lay dëggee di mën a dox fu sori taridul ma dana mën a dem di root ca place ndox yi dafa yegg si di sàkku ca ndox ma wa taakulu shajar di mën a lekk ca garab ya xatta yalqaaha rabbuha ba baa muy dajeeg moom la nga xam ne mooy booram ni ngi noonu bokk kon xadis bi day wone ki for lu am solo misaal bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe waa ji doon dox for benn mbuusu xaalis te jamono jooje nit ñi xamuñu woon lu bari ñu tudde ay kalpe léegi ak yooyu ay mbuus lañ daan def xaalis waa ji na ko waaw su ma doon dox ci mbedd ba for ko nag yonent bi ne ko xam leel ni man day for naa benn mbuus boo xam ni ña ngi ko takkee wuñ ko xonq masala for naa fi mbuus ñi ngi ko takkee wuñ ko xonq nga xamle ko doonte ne la nekk ci biir doo ko wax bu doon suñ jamono ji nga ne for naa benn kalpe der boo xam ni am na nangam ki nangam for naa benn sac sac boo xam ni marque nangam nangam nangam léegi nag su dee ne yow loolu am na nga xamle ko xam ko xamle ko nit ñi garde ko diirub at lenn ci borom xam-xam yi ne fan yu jëkk yi war nga di ko fàttali nit ñi ba passé nga koy fàttali semaine bu ne benn yoon ba passé nga koy fàttali weer wu ne benn yoon mi ngi noonu xam le ne ne for nga nangam mi ngi dépendre ci fa nga fore su dee ne place ay luuma la nga xam ne masalan dañ daan marché altine marché jeudi su boobaa chaque jeudi nga ñëw ne ah man day jeudi passé faroon naa fi nangam soo ko dencee nag lu mat at kenn laaju ko rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne sa mbir la sa mbir la ay sa bu ko bo- bu boobaa soo ko bëggee yeyoo ko lekk boo ko lekkee dara nekku ci amma bu la neexee itamit nga gis keneen ku ko gën a yeyoo nga jox ko ko waaye daal comme nga def nga ci sa devoir ba xam ne ko atum yàlla gisuñu boroom loolu wërsëg la wala yàlla wërsëgal te loolu it yàlla mooy wërsëgal ku ko neex ak nu mu ko neexee amma bu dee boroom ñëw na ci diggante bi su boobaa it lañ koy wax mooy yaa moom mbuus mi waaw lan moo nekk ci biir su détaillé la nekk ci biir ñu xam ne moo ko moom ab saag la mu détaillé nekk ci biir ñu xam ne moo ko moom loolu it da ngay gis na day mën a am il faut que ñu vérifier mais mel na tey ji rek mën na ngaa for portable nit ñëw na moo ko moom su dee ne yow wóolu nga ko mën nga ko ko jox waaye boo ko wóolu it mën nga ko wax numéro portable bi lan la nga noonu numéro numéro portable bi lan la su boobaa da ngay gis ni un dootul ca mën a am benn lay bu dee moomu ko loolu kon mooy la nga xamee ne nii moom la yeneen bi alayhi salaam wax ci loolu léegi nag su dee yàlla dogal na nga denc ko atum yàlla comme niñ la ko waxee loolee da ngay gis ne sa mbir la su borom ñëwee gannaaw atum yàlla bokk na la gën a digg doomu li ca borom xam-xam yi wax mooy bu ko fa fekkee su boobaa moom dañ ko koy delloo la nga ca jot a lekkit su dee am na lu ca des bu ñëwee dañ ko koy delloo waaye bu dee ñëw na gannaaw at fekk yow mbir ma lekk nga ko ba mu jeex su boobaa amul lenn loo ko ci delloo gannaaw ba nga ci defee la nga xam ne mooy sa devoir waa ji loolu mooy lu jëm ci wàllu xaalis mu laaj ko na ko waaw su ma doon dox ci àll ba mu jëm a gis fa nag benn ab gàtt muy xar wala bëy te loolu léeg-léeg day am nga dem ci àll yoo xam ne gis fa benn xar wala bëy mu leer ne nag kii daa réer ndax fii de place yu ñuy sàmmee yeneen bi alei salaam na ko imma nga jël ko wala keneen ku dul yow dajeeg moom jël ko wala tilli gi jël ko loolu kon lu mu lay jàngal kon kay jël ko yóbbu maadaama ci biir àll bi nga ko fekk mu réer jëlal yóbbu xam ne yàlla la ko wërsëgal mi ngi noonu ndax budul loolu tilli yi ñoo koy lekk nga xam ngeen till mbokk bokk na ñi dàq yàq ci bàyyima yi mi ngi noonu bàyyima yu bëri mooy njaa àll yu bëri ñoom gayndeek ay seggag yu deme noonu lu ci bëri dañuy rëbb parce que dañoo xiif amma till mën nañu ci géttug bëy rey fi fanweeri bëy lan la soxla res bi rek bu reyee xotti lekk res bi rey bi xotti lekk res bi bàyyi dem yoonam benn till mën na def loolu gis nga daal loola tax yeneen tibaar yi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan ma zib aani jaa'i aani ila axiri benn xadis bu muy expliqué ni ñaari till yu xiif ñu yóbbu leen ci gétt ñu fanaan fa yàq nee na li nit yi li iñaan di yàqal nit ki ci diineem moo moo gën a garaaw loolu te loolu ngir till li mën a yàqe moo tax mu ne ko ah lu mel ne mën nga ko jël yóbbu mu ne ko waaw bu dee gileem nag mu ne ko gileem goo far ci àll moom bàyyi ko fa ndax gileem mi ngi li koy nandal gileem mi ngi li koy nandal ca xam ngeen gileem yàlla may na ko mën na am réserve ndox un mois du naan un mois gileem mën na ko def réserve ci ndox du naan gannaaw ba it mi ngeeg tànkam ay place yi muy jaar même bu amulum ñax mën na nekk di witti ci garab yi di lekk te loolu xarak bay mënuñu ko loolu it moo tax ba muy différence bi ndax bay bu toogoon fii mat semaine boo xam ne naandul loolu mën na faatu te it bu nekk àll bu amul am ñax mën na faatu amma bu dee gileema loolu lépp fekk ko ci mën na toog lu yàgg lu naan ca it lu àll ba ñàkk ñàkkum ñaxit mën na dem ca garab yi di wit moo tax mu ne ko foo fekk gileem gi réer moom bàyyi ko foofee loolu lañ ciy dégg rek ñun mooy lépp loo xamee ne nii gis nga ko mu réer te nga jàpp ne lii kat moom su ma ko fi bàyyee day sànko rek loolee mën nga koo jël nga yóbbu mais soo jàppee ne borom mën na ko jël si su boobaa bàyyi ko foofee loolu la ñu mën a dégg ci xadis boobee am na xadis bi ci tegee nga xam ne ki koy nettali ba tey mooy zayd ibnu xaalid boobu nee na wa anhu radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alehi wa sallam man aawa dallatan mi ngi noonu mu ne fa huwa daalun loolu day ak réer rek lañ koy tuddee maa lam yu arrifha fii xamliwu ko kii yonent bi alayhi salaam day wax ni ki for dara daal di koy denc na xam ne loolu lu réer la lu réer la fii xamliwu ko donte ne dool la mi ngi gën a jëm ci luy dund nga xam ne moo réer amaa luqata mooy loo xam ne dañ koo for rek mën na ëmb loo xam ne nii ah luy dund ak lu dundul kon te yow mi faroon masalan am xar jël rek yeew dugal sa biir kër loolee mbokk njuumte la mi ngi noonu am na ay mbokk yoo xam ne nii soriwuñ fii dara yàlla dogaloon na ñu tëj leen ci prison ci loolu ndax ay coup yi ñu gis ñi taxawal fii rek mu daal di gurgur dugal ci biir këram dañ loolu xam ngeen mbokk dafa day waar su ko defee kon loolu même bu dee day amit la gënoon a maandu yóbbul ci kër chef de quartier ba wala même boo koy dugal sa kër siiwalal dëkkandoo yépp ne leen ah xar yi kat dama koo gis mi ngi fii sama kër am maa jël rek dugal sa kër loolee lu doy waar la mi ngi noonu donte ne ni doomu aadama yi lu ne la ñuy def mi ngi noonu doomu aadama lu ne la ñuy def gisoon nañ benn dëkkandoo boo xam ne daanaka géttu xar la for jël rek dugal ci biir këram heure bu bëggee rey rey heure bu bëggee ngente ngente mi ngi noonu te wallahi ku ma xam fan yi may wax ak yéen faatuna rahimahullah ala kulli xaal pour wane rek ne mbokk lu réer boo ko foree yeneen bi sam ne ne si yéeg yaa ngi ko denc xam loo ko xamal ne lu réer la ay boo ko lekkee lekkee lu dagan amma nag bu doon te ne ne yow da nga koo xamle su boobaa day am beneen atte mi ngi noonu day am yeneen atte bokk na ci atte yooyee mooy yow mi nga xam ne da ngaa faroon tey am xar xar moomi nga di ko jël di ko dundal heure boo xamee ne nii denc nañ ko diir boo xam ne nii dem na ba yegg ca la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon masalan lu mat un an yaa ngi garde xar mi kenn gisu ko ba bis borom ñëw su boobaa dañuy xool la nga xamee ne nii moom nga ko doon dundale yépp borom daf la koy delloo yóbbum xaram da nga noonu da la koy delloo yóbbum xaram te it lay juddoo ca xar ma moom moo koy moom ndax bu deewoon moom mooy perte allahuma am na borom xam-xam yi wax it ne dañuy xool valeuru xar mi bis bi nga koy jël bi bi nga koy jël ak bi nga koy yafalee ba heure boobu lan mooy différence bi su ko defee mu delloo la ko yóbbu la nga xam ne mooy am xaram waaye daal almuhim li xadis bi di netti li mooy bu kenn for dara denc ko nit ko loo for siiwal ko ba ñu xam ko loolu kon mooy li nga xam ne jotoon nañ koo jël ci hadis yooyu ñu jotoon a jàng
وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم وعن المقدام بن معد يثرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود
kon xadis bi nga xam ne yi nga xam ne ñoo ci tegee an ibn abbas an iyad ibn himar sahabi boobu radiallahu taala anhu qaal qaal rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam yonent bi day daana wax ne man wajala man wajada luqtata fal yushhid zaway ad ah naam mu ne kon fal yushhid na seedaloo zawe adlin ñaar ñu maandu ci loolu wal yaxfaz xifaasaha na denc la nga xam ne moom mooy mbuusam ma wa wikaaha ak la nga xam ne moom lañ ko takkee summa la yaktum gannaaw ba nag bu mu nëmb wala yu xayib te it bu mu yóbbu la nga xam ne nii moom la foron di ko dugal fu ko kenn dul gisee fa in jaa rabbuha fa huwa axaqu biha heure bu boroom ñëwee moo ca gën a yey wa illa fa huwa maalullahi yutihi man yasha su ñëwul nag nga xam ne lii day alali yàlla la moo koy jox ku mu soob rawahu ahmad wal arbaa ila tirmisi mi ngi noonu amma xadis bi ci tegu wan abdirahman ibnu usman taymi sahaaba boobu radiallahu anhu anna nabia sal allahu alihi wa sallam naha an luqatatil an luqatatil xaaj yonent bi day da daan tere la nga xam ne mooy la ñu fore ca ñi nga xam ne dañoo nekk ci aj màkka ga rawahu muslim وعن المقدام ابن معد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ديدت لا يحل زونا بن من السباع du dagan mukk boroomi sell ca la nga xam ne ay faddkat lañu ca àll ba wala alximaarul ahli wala la nga xam ne moom mooy mbaamu kër wala luqatatu min maali muahad wala lenn lu ñu for ci alalu koo xam ne dañoo amanteeg ñoom kulle rek jàmm ca ña nga xam ne duñu ay julit illa an yastaghniya anha xanaa lu dul moom mu daal di doylu ci loolu mi ngi noonu su boobaa mën nga koo jël kon mbokk xadis bi ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni ki for alal na ut ñaari nit ñu maandu mu ne leen man kat dama for alal sangam alal jooji mi ngi ci man bu ko defee ñooñu doon aji seede tey bis bu deewoon it ñu xam ne lii day bokkul ci alali diw ndax lii da koo foroon gannaaw ba it bu dee ne marchandise la na nga wattu mbuus ma ak lañ ko takkee te léeg-léeg mën na doon marchandise boo xam ne mënuñu koo denc noonu rek masalan ab taximan tey nit ki mën na fàtte ci otoom benn saako orange ngi noonu wala ñu fàtte ci moom ay tamaate wala yu demee noonu su ko defee loolee da ngay gis ne du neex a denc ci denc bu yàgg am na lenn ci borom xam-xam dañu naan suñu ragalee ne lii buñ ko dencee na yàqu waa ji na ko jël mu jaay ko bu ko jaayee denc xaalis bi heure bu borom ñëwee na ko ah yow kat yaa sama sa dégg naa yaa fi foroon masalan dàmb ak mango ah ci place tel loolu de maa ko moom mu ne ko wax nga wax nga dëgg waaye dama koo jaayoon xaalis baa ngi nii mi ngi noonu ndax bu ko tegee benn place day yàqu te mënu koo for ci saa si lekk ko ci saa si loolu kon moo tax mu ne ko dencal mbuus mi dencal liñ ko takkee léegi nag mbir mën a doon bu ñu mag bu ñu ko mënee denc xëyrul bu ñu ko mën sa denc ñu seet nuñ ko mën a weccee allahuma la ci yeneen ci bàyyi salaam teg mooy bul for dara mukk nëbb ko ay noppi ca waxoo ca bul jël marchandise mi it làq ko mi ngi noonu bu ko làq way la yu xay yëpp bu ko làq heure bu borom ñëwee kooku moo ci gën a yey amma nag su dee ne bi nga ko foree seedaloo nga ko xaar nga diir boo xam ne diir bu normal la gisoo borom wërsëg la wula yàlla jox te it mbokk yàlla bu ko neexee wërsëgal la ci loo xamee ni nii moom noonu la ko defee ay bokk na ci loolu dox nga ci mbedd for fa xaalis def nga sa kemtaleel kàttan pour xam boroom xamuloo boroom mu ne ko loolu wërsëg la bu la yàlla subhanahu wa taala jox su ko defee su dee da ngaa bokk ci ñëwoom lay nga jël ko jox ko ay masakin loolu mooy la gën soo ko aajowee nga sarax ko sa bopp dara nekku ci mi ngi noonu amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tegee mooy xadisu abdurahman ibnu usman ataymi bi mu ni anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam naha an luqtati alxaaj mooy la nga xamee ne nii mooy aj màkk moom boo fa demee loo fa for amoo droit di ko denc yonent bi alayhi salaam da daan wax naan kenn du for dara màkk di ko denc xanaa lu dul ku koy siiwal boo foree dara li nga mën mooy téye ko damaa for dara damaa for dara damaa for nii bay gis borom soo ko gisul it nga teg ko keneen ku ko mën a gis-gis waaye doo ko for mukk di ko denc loolu yi alhamdulilah jàpp nañ ne comme léegi makka bëri na ay responsable police yi du jeex ak ñu ci bëri kon loo for ci ñoom ngay dem nga jox leen ko ñoom ñooy xam nu ñuy def ak moom waaye bu dee makka moom kenn de for makka di denc mi ngi noonu amma xadis biñ ci mujj a jël mooy xadisu miqdam bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day nee na li nga xam ne day dem di fadd ci àll bi lu ci am ay sell bu ko kenn lekk lu ci am sell kenn du ko lekk nga mel ni gaynde yaag mi ngi noonu segg yaag xatta xaj yaag lépp loo xam ne dafa am ay sell di sadd loolu kenn du ko lekk mi ngi noonu amma bokk na loo xam ne ñun du suñu aada mooy lu mel ni bukki sénégalais xalaatul lekk bukki waaye nag lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne dafa dagan ndax moom amul ay sell gis ngeen cey lu muy fàdd sax lu néew la lu ci bari lu ñuy fàdd ba pare la ñëw moom di lekk bokk na ci yeneen ci bàyyi salaam yi nee na mbaam kër yi wala fi di ko wax mbaam sëf loolu dafa xaraam jullit du ko lekk alhamdulilah ñun Sénégal suñu aada sax moo ko bañ avant suñu diine gannaaw ba itamit yeneen ci bàyyi salaatu wasalaam ne li nga xam ne dañ koo for muy alalu ab chrétien wala bu yahud boo xam ne dañoo am ak moom jàmm amoo droit di ko for xam ne lii alalu chrétien rek tax nga ne na nga koy lekk déedéet xanaa lu dul nga yëg ne borom soxlawu ko ay lii lu mu doyo dal la sànni ko yow soxla nga ko nga lekk ko wala boog mu ñëw may la ko nga lekk ko waaye loolu mbokk mu ñuy jàngal ne islam ñi nekk ci seen biir yor ay diine ñooñee ñu am ak ñoom jàmm kenn amul droit di lekk seen alal ci neen da ngeen noonu lu bari ci ndaw ñi dañuy jàpp ne maadaama bi yéeféer la rek loo jël ci alalam dagan na mais mbir mi demewul noonu mbokk am naa nag lislaam buy wax bu lekk alalam ci neen kuy tuur deretam nag ci neen loolee mbokk taxul ñuy wax yonent bi alayhi salaam nee na kiy rey koo xam ne dañoo am ak moom jàmm ci biir dëkkub lislaam mi ngi noonu man qatala muahadan lam yarix raihatal janna ku mel noonu xetu àjjana sax du ko xeeñ loolu it kon di mbir moo xam ne xëy na léeg-léeg ngay dégg ay mbir ci yeneen i dëkk alhamdulilah yal na yàlla musul ci suñu réew ngir ñaan dëkk sangam gars yi dañoo gis ab groupe touriste ñu dóor bomb seen kaw rey ci nangam rey ci nangam bokk loolu njumte mënu ko passé ay yéeféer lañu ñu nga jóge dëkk yéeféer bi ñu ñëwee ñu jox leen visa ñu ñëw ci dëkkub lislaam loolu dañu leen war a aar ba ñuy delluwaat seen dëkk mais képp ku leen rey rey nga leen ci erreur bu dee ñi nga xam ne dañuy dëkk ak ñoom nekk ak ñoom ci jàmm ñooñu tamit dañoo war a ñoŋal seen alal ñoŋal la nga xam ne mooy seen deret képp ku leen rey ci erreur wala nga lekk seen alal ci erreur def nga loo xam ne nii islam sant la ko loolee kon moo aju ci mbokk bunt bi ñu doon jàng tey mooy buntu loqota ñu jëm ci beneen bunt bi nga xam ne mooy bunt bi gën a compliqué ci xam-xamul islam mooy lu jëm ci wàllu miiras
الباب العشرون باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف
kon mbokk lii mooy baabul faraid mooy buntu fard farida mooy lu yàlla farataal miraas wa mu ne faratal bu bawoo ci yàlla loolu tax ñu tudda ko faraid mooy la nga xam ne ku nekk dafay am cir boo xam ne dañ la ko jox mu nekk farata ñeel la donte ne nii moom la ñuy tuddee miras xadis bi ci jiitu an ibnu abbas radiallahu anhuma qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائد بأهلها جتللين فرتيا تنكا ييوتي مراسغا فما بقي فهو لأولى رجل ذكر lépp lu ca des dana ñeel ka gën a yey ca góor ca góor ña nga xam ne mi nga noonu ay góor la ñu donte ne jafe naa wax ci wolof rajul muy góor zakarit mooy góor mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk kon lii yonent bi alei salatu wasalaam wax mooy farata yi nañ ko jox seeni boroom miraas bu nekk dafa am ñu ca am ay cër léeg-léeg nag mën nañoo am cër ba pare cër boobee am nag ñoo xam ne dafa des loole dañuy tudde taasib dañuy xool ko gën a yee ñu jox ko ca ñu jox ko ca loole mi ngi noonu mi ngi mel ne rek tey jii waa ji nga xam ni dafa faatu woon daa di bàyyi la nga xamee ne nii moom mooy ay doom yoo xam ne nii ay doom yi jigéen lañu kese su boobaa da ngay gis ne alal jooju mu bàyyi doom yu jigéen yi mënuñu koo jël ñoom ñépp léegi su boobaa dañuy xool ndax baay ba ma nga fa su baay ba nekkee baay moom da ngay gis ne day am cëram donn la desit ca miraas ba moom moo koy jël du ca bokk kenn su dee ne bàyyi ba ne ko fa su boobaa ñu xool frère yam ya nga xam ne moom la fa bàyyi frère yam bokkal ndey ak bàyyi su dee ne ña nga fa ñam bokkal bàyyi du ñu doon su dee frère yam bokkal bàyyi ne ko fa su boobaa ñu xool frère yam bokkal benn bàyyi kese su dee ne ñooñu kenn ne ko fa ñu xool ña nga xam ne ñoo bokk ak baayam ndey ak bàyyi wala ña bokk ak baayam baay loolu tax góor ñu ñi nga xam ne dañuy donn moom la ñuy tuddee al ubuwa muy baay ya la nga xamee ni mooy al bunuwa di doomi góor ya al uxuwa di frère ya al umuma di baay tax ya mooy sa frère wu baay wala sa mi ngi noonu moom la ñuy wax frère wu baay gannaaw ba mooy li ñuy tuddee al wala ca mooy ki gore leen la nga xam ne mooy ab jaam al muhim mbir la yoo xam ne nii lu compliqué la loo xam ne nii la ca nit ki mën a jëriñoo rek mooy masala boo am soo ko laajee ñu xool naka lay demee amma yii ay base yu ndaw a ndaw a ndaw la la mën a jox pour nga am ci benn déggin amma bu dee ni li hadis bi waxe ni al awla mooy ka gën a jege toujours toujours alal miraas bu desee jege ci miraas ba dañuy xool ka gën a jege ka gën a jege nag mën na doon mbooloo parce que mën doon ay frère yoo xam ne nii mat nañ fukk sax su boobaa ñoom ñoo koy séddoo bu dee ñoo yem nit ñu sësi ci aji deej amma bu dee xadisu ñaareel bi an usamata ibnu zayd radiallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر wala yarisul kafirul muslim mu ne xam leen ni jullit du donn yéeféer yéeféer du donn jullit soo amoon sa benn doom mu wëlbati ku nekk chrétien waliyas billah soo dee du la donn moom it bu dee doo ko donn sa bàyyi boo xam ne da ngaa dugg ci lislaam moom mu des ca diineem bis bu dee yow amoo droit donn ci moom dara maadaama bokk leen diine su ko defee du ngeen donnante mu lay won it ñii takk jabaru nasaraan it naka noonu heure boo takkoon jabaru chrétien islam daganal na ko doonte nga rafetlu wu ko waaye bu boobaa it boo dee du la doon moom bu la jëkkee dee doo ko doon ndax maadaama bu ko leen din du ngeen doonante amma bu dee xadisu ñetteel bi an ibnu masud radiallahu taala anhu an anhu laaj nañ ko fi bintin wa binti ibnin wa uxtin waaw ki dee nag bàyyiwul lu dul benn doom bu jigéen ak benn doomu jigéen bu doomum bu góor jur ak sëram mi ngi noonu sabaat ñoo bokk ndey ak baay wala baay faqada nabi sallallahu alayhi wa sallam libnati nisf yonent bi atte ni doom bu jigéen ba kon mooy jël gennoolu alal ja wali ibnati l ibn sudus takmilatal sudusayni doom bu jigéen ba doom bu góor jël ñu jox ko un sixième mu daal di mottali la nga xam ne mooy ñaari ceer ya sœur ba jëloon ya ya doom bu jigéen ba jëloon wa ma baqiya falil uxt la des sœur ba daal di koy jël comme niñ ko waxee mbokku lii ay mbir la yu xaw a compliqué soo jàngul tuuti sax pour nga suivre ko day jafe ala kulli xaal yeneen ci bàyyi sam lan nañ ko waaji dafa faatu mi ngi bàyyi benn doom bi jigéen kese waaye nag amoon na doom ju góor faatu na waaye bàyyi na fa sët bu benn doom bu jigéen kon sëtum bu jigéen ak benn sëram moom sër bi na fokk dañoo bokk ndeeg bàyyi wala dañoo bokk bàyyi kese yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam ne doom bu jigéen bi genn wala alal ji lay jël te bépp bàyyi bu dee bàyyiwul lu dul benn doom bu jigéen automatiquement genn wàllu alal ja moo ko moom léegi su doonte ne ñoom ñaari doom yu jigéen lañu alal ji bu nekkoon ñetti junni ñaari junni yi ñoom ñoo ko moom léegi nag benn doom bu jigéen la bàyyi waaye am na sëtam bu jigéen boo xam ne doom bu jigéen bii bu fi nekkul woon mooy taxaw place am kon moom nañ ko jëli la nga xamee ni nii moom mooy ñaari ceer yi ñaari doom yu jigéen ñi waroon na doon mu mottili ko masalan pour nga mën a dégg waa ji bi muy faatu bàyyi na juróom benn junni bàyyi na doom bu jigéen sët bu jigéen dañ naan yow doom bu jigéen bi jëlal ñetti junni yi soo amoon sër yaag say sœur même bi ngeen doon téeméer ñeenti junni yi ngeen di jël waaye amoo sœur waaye am nga fi sa frère bàyyi na fi doom bu jigéen kon ñeenti junni yooyu wa waroon a junni bi waroon a tege ci ñetti junni yi pour mu nekk ñeenti junni nañ ko jox kële muy sët ba loolu la ñu tudd sudus muy un sixième kon alal ji di dellu des ñaari junni naam doom ji jigéen ji jël na ñetti junni sët ba jël na benn junni mu des ñaari junni ñaari junni yooyu sëram moo koy jël loolu moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan jigéen du ñu jeexal alali miraas dañoo xamul ñaan ci li ëpp ci ay cas duñu duñ ko jeexal waaye bu dee cas bi ñu wax jigéen dafay jeexal alali miraas ca bu boo bu dee moog sër bi ñoo bokk ndey ak bàyyi même bu fa doomi bàyyi yu góor nekkee sër bi da leen di muur ndax dañ ne sër bu dee dafay donn ak doom day dàq doomu bàyyi su ko defee alal ji yépp ay jigéen kese ñoo koy jël ci xaal boobu rek lay doon mooy fekk ne benn doom bu jigéen la bàyyi naka noonu mën na cee fekk benn sët bu mu bàyyi wala mu daa di bàyyi la nga xamee ne ni ah mu teg ca benn sœur lii moom bu amee alal ji day jeex ñetti jigéen ñooñu mi ngi noonu amma bu dee xadis bi ci tegee mooy xadiisu abdullah ibnu omar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sal allahu alehi wa sallam laa yatawaarasu ahlu ahlu millatayni du donnante ñoo xam ne nii bokkuñu ay yoon ba ñu topp rawahu ahmadu al arbaa wa tirmisi ila axiri xadis bi day wone ne ñaar ñu bokkul diine duñ donnante lañ koy différencier ak xadis ba mu dal wax julit du doon yéefér borom xam-xam yi sukkandiku ci xadis bi dañ ne xatta juif bu sëyoon ak chrétien bu ñu dee duñu donnante ndax ñoom bokkuñu diine li kiy gëm ak li kiy gëm bokkul masalan tey ab juif boo ko laajoon isa ibnu mariam lu mu lay wax danaan doomi njaaloo la mi ngi noonu laanatullahi alayhim ab chrétien la bëri ci ñoom dañoo jàpp Isa doomi yàlla la xoolal différence boobu loolu kon mooy mbir bi loolu kon mbokk ñu gis ne ci wàllu googu moom noonu la ko yonent bi alayhi salaam daan tërale ba doon atteb l'islam moo fi am it tey bu ñu gisoon ab chrétien comme juif bu ñu sëyee yépp bu ñu war a donnante dañ naan leen xëy yéen ñaar ñi mënu leen a donnante mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعا فقال لك ثلث آخر فلما ولى دعا فقال إن الثلث الآخر طعمة رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وأخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان
kon mbokk yeneen xadis yi ci tege bi ci jëkk mooy xadisu imran ibnu xusayn رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابني إن ابن ابني مات سما دوم دوم دافاتو أي سبسط فما لي من ميراثي لن مومنيل ميراثم fa qaala laka sudus mu ne ko ñeel na la ca benn ci juróom benn muy un sixième fa lamma walla da'aahu ba mu demee ba wëlbatiku mu woo ko fa qaala laka sudusun aaxar mu ne ko ñeel na la beneen benn ci juróom benneel ya muy beneen si un sixième fa lamma walla da'aahu ba mu wëlbatikoo mu woowaat ko fa qaal inna sudus al aaxar tu'ma mu ne ko li sixième bu mujj bi day loolu ak leel la ay ak may la guñ la leel mi ngi noonu rawahu ahmad wal arbaa wa sahahahu tirmisi wa huwa min riwayati alxasan albasri an imran wa qila innahu lam yasma minhu ala kulli xaal moo ko xadis bi li muy jàngale mooy lu aju ci kaa maam li aju ci kaa maam mooy xam nañu ni maam bu ñuy wax ak ndonoom day fekk bàyyi faatu na ndax bàyyi buy dund la chaque maam du doon mi ngi noonu léegi nag góor gi ñëw ci yonente bi alayhi salaam mu ne ko man de sab sët moo faatu léegi lan moo ma ñeel ci miraas bi yonente bi alayhi salaam na ko dana la ci ñeel la nga xamee ne nii mooy un sixième bi mi ngi noonu dana la ci ñeel un sixième bi loolee da ngay gis ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam li tax mu wax ko loolee mooy waa ji dafa bàyyi doom ndax suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne falil walidayni li kulli wahidin minhuma sudus in kaana lahu walad mooy képp ku faatu bàyyi doom góor la jigéen la automatiquement yaay un sixième bàyyi un sixième loolu mooy seen farata ci miraas bi li ngi noonu léegi nag kii moom baay bi nekku fa maam ji moo fa nekk ñëw mu jël un sixième ne ko lii mooy sa farata maadaama sa sët boobu bàyyiwul baay ca bàyyiwul domb góor li ngi noonu léegi nag bi nga xamee ni nii yonente bi alayhi salaam wax na ko loolu loolu farataam la bi muy dem woowaat ko na ko ah am nga ci beneen sixième de lan moo waral beneen sixième bi mooy wax nañu sànq ne ki faatu bàyyi ñaari doom yu jigéen wala ñaari téeméeri doom yu jigéen ñoo yem su dee dafa bàyyi juróom benn junni jigéen ñi deux tiers yi lañuy moom loolu mooy ñeenti junni yi lañuy moom kon waa ji bàyyi na juróom benn junni ñeenti junni yi mooy faratay xale yu jigéen yi benn junni bi mooy faratay maam ji mu des benn junni yeneen bi alei salaam na ko jëlal benn junni boobu waaye xamal ne loolu du sa farata li tax ñu jox la ko mooy tansib moo tax ñu jox la ko loolu mi nga noonu lu waral loolu mooy tey bu doon te ne doom bu góor ma nga fa loolu du ko laal amma comme ñu jigéen rek moo fa nekk dafa des mu ne ko lii moom dañ la koo jox mu doon dollant waaye nag sa farata mooy lii ngir ëllëg yi si biir kenn bañ a jàpp ne bu sama sët dee rek war naa ca am ñaari sudus lay farata mooy benn amma nag bu dee benn ba des na beneen góor néew fa susu fa ku dul yow yeneen bi alayhi salaam ci xadis bañ njëkk a jël dane fa ma baqiya fa li awla rajulin zakar loolu kon la xadis boobu di junj amma bu dee ne xadis bi ci tegee da xadis bi ibni burayda an abihi radiallahu anhuma anna nabiya sal allahu alih wa sallam jaala lil jaddati sudus yenent bi jagleel na maam ju jigéen un sixième ida lam yakun dunaha ummun su dee ne diggante ba kay yaay nekku fa xadis ba lee mi ngi wax xaalu ba maam boo xam ne maam bu góor la léegi nag yaay bu dee mi ngi dund doomam faatu ñeel na ko sudus bu dee am na doom su dee ne waa ji amul doom su boobaa yaay ceeru alal ja lay jël ceeru alal ja lay jël bàyyi woon na ñetti junni su boobaa yaay mooy moom benn junni ba muy ceer ba allahuma lu dul mu am ay frère su boobaa ceer boobu dañ koy xàcc digg bi dollil ko bàyyi gis nga bu dee ma nga fa wala bu dee nekk fa it ñeneen i frères yooyu doon jël ko waaye daal yaay ñetti xaal yooyu la am benn waa ji am na doom un sixième lay am caalal ci muy juróom benn junni la benn junni moo ko moom amul doom am na ñaari junni ci juróom benn junni ya waa ji bi muy dee bàyyi nay frère ah kon yaay day dellu ca benn junneem ba rek na ngi noonu loolu moom xaalu yaay léegi nag yaay néew fi waa ji faatu na yaayam yaayam dundul waaye maamam mi ngi dund maam jooju dañ koy jox sudus mooy un sixième alal ji juróom benn junne la bàyyi woon dañ naan maam benn junne bi yaaka moom su dee ne maam ju tolloog moom ma ngiy dund ay ki jur bàyyam direct ma ngay dund ñu ne leen kon yéen ñaari maam yi séddoo leen junni bi ndax yéen a yem ci ajeke dee lu tax ndax yaay ji ko waroon a jël nekk fi loolu mooy xaalu maam ju jigéen ci wàllu googee amma bu dee ne xadis biñ mujj a jël mooy xadisu est ce que jël nañ ko sax xam du foofu la ñemoon naam waaw jëluñu xadisu miqdaad bi jël nañ ko wa an miqdaam ibnu maadin ku mel moom gis nañ ko mu ne radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxaalu waarisu man la waarisa la tant day dana donn koo xam ne amul ku ko donn axrajahu al arbaa siwa tirmisi wa xasanahu abu zura arrazi xadis bi mbokk day wax ne tanta su dee ni ñi waroon a donn alal ja nekkuñu fa su boobaa tanta mën na koo donn loolu nag mbokk ixtilaaf bu rëy la ci borom xam-xam yi da ngay gis ni bu ñu delloo ci li ëpp ci ñoom dañ ne ñi nga xam ne ay jigéen lañu waa muy lii di côté tanta yi ñooñu duñu bokk ci ñuy donn ñiy donn mooy côté geño côté bàyyi ak lu mu sori sori sori mi ngi noonu dañuy xool bàyyi frère frère u bàyyi maamu bàyyi ila axiri mais am maa côté yaayam ay tantaam ak yu deme noonu ay nijaayam ak yu deme noonu ulul arham loolee borom xam-xam duñu leen donnaloo am maa nag am na ci ñoom ñoo xam ne te it dañ naan loolu moo nekkoon mazhab abou bakar ku mel ne al xusaymin dana wax lu jege fukki sahaaba ak ñett nangu nañu loolu mooy dañ ne alal ji su dee ñi ko waroon a doon kenn néew fi masalan benn waaye ngi nii bi muy dee lan la bàyyi benn doom bu jigéen baayam dee na amul frère léegi alal ji genn wàllu alal jox nañ koy doom bu jigéen benn mbokk boo xam ne nii ci côté gañoom xool nañ xamuluñ ko ko waaye nag tantam mi ngi fii di dund alal joojee lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne nañ ko delloo trésor julit ñi waaye borom xam-xam yi sukkandikoo ci hadis yu mel nii dañ ne déedéet bu fa tantam nekkee ku mel noonu nañ ko jox alal joojee mi ngi noonu mooy baj mooy nijaayam sax lay bëgg a wax bu fa nijaayam nekkee nañ ko jox alal jooju bu fa nekkul ñu jox ko tanta ñu jox ko kiyam alxaal mooy nijaay mi ngi noonu bu ko defee alxaalata moom mooy la nga xam ne moom mooy moom mooy tantam loolee mbokk gis nañu mooy hadis bi nga xam ne nii bi ci gannaawam waaw daani ko sorewul ak moom te mooy hadisi abi umama ibn sahal bi radiallahu anhu qaal kataba omar ila abi ubayda omar bindoon na jëme ca abu ubayda radiallahu anhum an rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal allahu wa rasuluhu mawla man la mawla lah yàlla ak yonentam ñoom ñuy féetewoo képp koo xam ne amul ku koy féetewoo wal xaal waaye nijaay day waaris man la waarisa la day donn képp koo xam ne amul ku ko donn rawahu ahmad wa wal arbaa siwa abi daawud ala kulli xaal mbokk xadisu bi ñu nga xam ne dañ ci jeexale insha allah omar daf doon wax ne képp ko dee ci jurit ñi xamuluñ ko benn mbokk nañu xam ne yàlla ak yonentam ñooy ay mbokkam lum bàyyi ci alal nañ ko jël dugal trésor public amma bu dee ne bàyyi na fa nijaayam te xaal boobu comme ni ngeen ko waxee du nekk tanta xaalata mooy tanta xaal boobu bu dee nijaay ma nga fa ngallaawaay nañ ko ko jox day wone bu fa nijaay newul it bu fa tante nekkee nañ ko ko jox ay képp koo xam ne nii jege ñaaleem la ci côté ndeyam la nañ ko jox alal joojee loolee da ngay gis ne rawatina suñ jamono tey jii lu bari ci borom xam-xam yi d'accordul woon ci loolu sax dañuy mujj ni lu ci bari trésor public buur yi léegi nañ koy jëfandikoo safaanoona ak lañ ko doon jëfandikoo jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon képp ko bàyyi alal gis ñu xool côté géñoom ay côté baayam xamuñu ko ko don nañ xool côté yaayam ña fa nekk ñu jox leen ko loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a rafet comme ni ma leen ko waxee woon mbokk lii mooy bunt bi gën a jafe ci wàllu fiq bi ngay jàng yépp yàlla nañ ci yàlla xamal lañ cay jëriñ wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain